bon Juppé lu ñu mën a wax ci moom bëri na parce que dafa nekkoon dafa nekkoon koo xamante ni dañu bokk lu bëri dañu bokk métier bu ñu évoluer mu nekk acteur nekk mannequin man ma nekk régisseur ñu bokk ay production yu bëri ñu bokk gox bu ñu dëkk et tout le temps benn discours la doon am muy naka lañuy def ba suñu liggéey ñu jëmmal ko naka lañuy def ba gox bu ñu dëkk aussi tamit ñu jëmmal ko ba ñu nawloo ñu donc mu nekk ki nga xamante ne nii amul xar ma yàlla ak kenn mu nekk nit bi nga xamante ni aussi buggoon na ñëpp JP li mu doon def ci social man mii sax man man def ma ko ci social. yow ko mën a wax si accident bi. man maa ko yëg ay 7 heures 8 heures du matin laa ko yëg. ba mu amee woo naa ñi ma war a woo li ñu waroon def def nañ ko xëy na yàlla moo ñëw rek mais. ñu naan dafa amoon négligence médicale. bon xam nga dee moom bu ñëwee rek ñëw na nañu sant yàlla rek xam ni suñu borom lii la namoon donc ñi ngi ñi ngi ñi ngi massawu ñëpp. man ak JP suñu dernière discussion honnêtement JP daf ma. dafa ma woo télé daf dañ tase dafa am fu ñu tase mu ne ma Lamine kaay ma ñëw mu ne ma toogal ma toog mu ne ma Lamine est-ce que xam nga yow tu seras un multimilliardaire ma na ko booy yow bëgg nga lekk di sama xaalis mu ne ma non au nom de Dieu booy je suis très sérieux tu seras un multimilliardaire mu ne ma nag li ma waroon ci sikap def naa ko quoi léegi nag booy doxal leen ngeen def lu leen neex ngeen changé maa ngi seen ginnaaw. GP lii la ma mujjee wax. Eh, sànq ñu lay ngi daan fii loo doon sentir mbam jar la yaa nga nit ak nit nit nit la ko tey sax xarit boo gisee ñu koy dugal ci kàmb di ko denc man tey bu ñu ma doon dugal ci kàmb JP day jooy day siisu nit bu nekk nit la li des kay mooy nañ ko ñaanal rek fi mu nekk gënal ko fi mu jóge merci beaucoup gars yi. ñu ngi lay jaajëf sëñ tur naka la. Jibril laa tudd. Jibril mën a wax si GP. ah def na ñu ngi xamante. war mat quinze ans léegi def naa si 2009 ma yoroon agence de communication te ku wax agence de communication nag wax lu bari si wàllu publicité donc ci laa ko xamee woon ci publicité bu ma waroon réaliser man donc moom mu bokkoon si def casting bi. yàlla def na ba nga xamee ba léegi nag on a gardé de très bonnes relations mu nekk nit koo xam ni euh, li ma gën a mark si moom mooy fonk liggéey euh, saa bu xëyee suba ba ngoon lu muy xalaat mooy Dóor waar. Dóor waar te lu mu am bokk ko ak nit ñi euh, nekk nit ku dal nit ku yaru. man de sincèrement euh, mosuma kaa déggal si te mosuma dégg tamit nit wax si moom saafaan lu dul jàmm ak salaam ak amel ñëpp jàmm foo ko fekk dafay ree dafay kaf yàlla def na nag wax dëgg yàlla loolu la xam si moom. Euh, noo jege accident bi wala décès bi ñu ma fekk Magal Touba euh, sama kër Serigne kër seen njiil bi sëñ Abdou Fata seen benn naataango bu Seneweb moom moo ko yëgal fekk may defal benn interview ci interview bi la ko annoncé mu nekk lu ma bett lool ndax yàlla def na dama tukki woon fan yi accident bi sax yëguma ko yàlla xam na ko donc veille màggal gi laa ak si nekk si te màggal gi yëguma ko woon ci bisub màggal gi ci interview dañ ma ko yëgalee mu nekk nag choc mu nekk choc bu rëy parce que euh, am na nit moom fu muy toll bu lël doo rek day nekk mbetteel si yow wax dëgg yàlla waaye nag dañ koy jël avec philosophie te xam ni ko yàlla suñu borom moom kenn mënu xëccoog moom donc euh, ay jaam lañu rek moom moo ñu fi wàccee bi muy wàccee tàgguwul kenn bu ñu fiy jëlee itam ko soobee la koy jëlee du tàggu la ñu mën a wax si GP loo xam ne public bi xamu ko woon si moom. ah jàpp moo ne mën naa wax loo xam ne public bi xamu ko si moom ndax defe naa ni wéy bi yëpp benn la euh, li ma mën a wax si moom loolu la keneen wax si moom man daal li ma xam ci moom wax dëgg yàlla mooy nitu jàmm liggéeykat euh, fonk boppam wax dëgg yàlla loolu laa mën a loolu laa xam si moom. selon les témoignages ñu bëri dañu ne moom di chrétien la mais musulman yi suñu xewlee dara daf si dem ba jeex. waaw loolu mooy nite rek. comme ay mois de ramadan yi day topp mooy nite xam nga nite moom nite nit la yàlla suñu borom romb na fi ñu ko fi ñu ko fi ñu ko catégoriser euh, malheureusement sénégalais dafa jël yàlla teg ko ci foo xam ni euh, yàlla dépassé na foofu. Euh, na yàlla suñu borom dépassé na catholique musulman juif athée wala xeetu mel noonu weesu na loolu. waaw je pense que nag wax dëgg yàlla débat bu mel noonu man maa koy soo ko dégg ci réew mi mu metti ma lool wax dëgg yàlla waaye daal. polémique bi. waaw musulman warut a ñaan chrétien. bo loolu moom ñi ko wax xëy na suñu diine moo ñu ko moo ñu ko moo ko wax fekkente ni suñu diine ko moo ñu ko sant moom suñu diine la waaye nag ñun en tant que jullit am nañ droit aussi wax dëgg yàlla def lu ñu soob bàyyi ak yàlla suñu borom du dëgg waaw ñuy wax loolu ñoo fi dàq def saafaan suba ba ngoon dañuy xëy di tooñ di wax lu dul dëgg di dugg suñu seen yoon nekkut di dem si boîte de nuit yi di naan sàngara di def lépp lu nga xam ne seen diine tere na leen ko après circonstance mel nii ñu ne yàlla aay na li yàlla aay na te suba ba ngoon li yàlla aay ñu ngi koy def suba ba ngoon léegi nag yàlla sunu borom moom yàlla ñëpp la ñoom yàlla bi ñu gëm ñun moom lañu ñu gëm de amul ñaar bu doon dañ mën ay atela sax ñu ne ñooñu gëmuñu yàlla mais ñi nga xam ne yàlla bi ñu gëm ak yàlla bi ñu gëm ñun benn la euh, seen yonent bi nga xam ni moom mooy insa ñun de en tant que murid xam nañu li si suñu wasila wax mooy Serigne Touba Cheikhul Khadim li mu ko tagg ak li mu wax ci moom ak li mu wax ci euh, Marie bi nga xam ne moom mooy jigéen bu gën ci jigéen ñi yàlla suñu borom fi ndel ko si biir alxuraan karim ñu mel noonu mënuñu lu dul wax dëgg yàlla jàppe leen comme suñu bopp man de foofu laa sama tolluwaay foofu la ne nekkuma si da ngay dem euh, euh, euh, ñaanal ko doo ko ñaanal da ngay dem armeer yi doo fa dem da ngay dem fa dem fépp la ñuy dem jàpp ni nag yàlla suñu boppam mooy yàlla ñëpp waaw ah, bu fekkente ne jàpp nañu yàlla ñii lay baal du baal ñële ñun ngi si erreur bu rëy loolu loolu bi weesuwul loolu waaw ah, erreur jàpp ni yàlla ñii lay baal du baal ñii ñii la yàlla fi ñu ko teg dépassé na foofu ah, man sama tolluwaay ci foofu la toll. ñu ngi lay jaajëf jaajëf ku baax